aousubillahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dellusiwaat nan ak yéen ci seen beneen vidéo firi gént ci seen chaîne bii di firi gént tv officiel ñu ngi leen di ñaan ngeen abone partagé te topp ñu si yeneen ci suñu yeneen plateforme yi mën ngeen ñu topp ci instagram site bu yo topp mën ngeen ñu topp ci facebook firi gént officiel mën ngeen ñu topp encore ci tiktok site bu topp ko zalika yéen ñuy topp ci Instagram Facebook yëpp mën ngeen dem ci page Facebook bi daanaka lu ngeen soxla ci ay vidéo mën ngeen koo fekk lu jege parce que 300 vidéo mu nga fa lu ngeen soxla mën ngeen seet foofu di ngeen gént incha allah mën ngeen ci jot ñu ngi leen di wax ne mbir yi liggéey bi ni muy doxee mooy boo amee gént dangay dugg ci page YouTube bi fii gént TV officiel da nga gént xar da bi gént nag da gént 16 da nga gént loo mën a gént par thème lay traité da ngay bind rek la indi li nga génn su fekkee def naa ci vidéo su dee defeguñ ko ci da nga ñu envoyé audio par whatsapp ci numéro bi ngeen jàkkaarloo mais da ngay fay 500 Wave wala Orange Money la ñuy barkeloo foofu wax ne ñi nekk biti réew euh, dana am jafe-jafe pour envoyer 500 bi ubbi nañ beneen buntu pour abonnement abonnement yi 20 euros la moom ngay abonné incha allah weer bu nekk lépp loo soxla ci weer bi mën nañ la jox tontu incha allah kon. tey ñu ngi ñëw ak yéen ci bunt bu am solo mooy gént yoo xam ne foo ko géntee dafay firi xabaar bu neex xabaaru mbégte xabaaru bànneex loolu lay firi bu njëkk ci yooyu mooy da gént ay bunt wala ay fenêtre yu ubbeeku wala nga taxaw ci sa fenêtre mu ubbeeku ubbi sa fenêtre di xool ci biti wala nga tëdd nelaw sentir sa fenêtre bunt dafa ubbeeku dafay firi xabaar mbégte bu neex mën na laa dab incha allah loolu benn la ñaareel bi gént di jàng suuratu yaasin suuratu yaasin gént di ko jàng léeg-léeg dana ñëw firi xabaar bu neex xabaar bu mbëgte lu tax ma ne léeg-léeg mooy suuratu yaasin saar bu bari ay maanaa ci gént la parce que ki mu fekk ngay wut dara di ko sàkku doon ñaanul yàlla gént gis ko bokkul ak ki contexte kooku day firi ñaan yàlla bu nangu ca lool ki mu fekk ci feebar day firi wér ci sa feebar ki mu fekk ci njàqareek xat-xat day firi njàqareek xat-xat yu jeex et cetera et cetera dafa bëri ay yu yaatoo yaatoo yaatu yu ci am bu la fekkul ci yëpp dafay firi dafay firi xabaar bu neex kon kullun ala xasabi xaalati kenn ku nekk ci ñiy déglu suuratu yaasin xaal mu la fekk bu koy gént loolu lay firi ci bu dee fekku ci benn jafe-jafe dafay firi xabaar bu neex ñaar ñetteel bi da gént sa nit koy bëgganteel xale bu góor la wala jigéen la nga am koy bëgg wala yow nga am koy bëgg soxna nga gént mu faatu day firi xabaat bu neex xabaat bu neex xabaaru mbégte lay firi kon baax na ñett ñeenteel bi danga gént gis nit ku ñuul koo xam ne nit ku ñuul kukk la nekkul tubaab mais nga gis ay bëñam weex tàll muy ree mu siiñ ay bëñam yu weex rawatina mu sol yére bu weex dafay firi xabaar bu neex xabaaru mbégte baax na ci gént gént peinture peinture kër rawatina peinture bu blanc dafay firi xabaaru mbégte xibaar bu neex juróom benn juróom ñaar jigéen ji ëmb nekk ci ëmb mu gént di ñaan yàlla danga gént jigéen ji ëmb jamono yi nga ëmb nga gént ñaan sa borom day firi xabaar bu mbégte xabaar bu neex juróom jigéen ju rafet nga gént mu di la woo ci xale bu góor bu amagul soxna gént xale bu jigéen bu rafet di la woo ci xabaar bu neex boo ko xamee boo xamul day firi boo xamee xale bu jigéen bi laa day boo ko xamul day firi xabaaru mbégte ak xabaaru bànneex baax na ci gént bi ci topp mooy nga gént xale bu jigéen bu ndaw mu lay nuyu comme xale bu gis nit di ñëw mu daw tatafu la nuyu la day firi xabaaru mbégte xabaaru bànneex bu neex ba ca topp mooy danga gént koo xam ne xam nga ne kii diw faatu na bu yàgg nga gént mu lay nuyu wala mu ñëw sa kër ziar si la nga gént gis ko mu am melokaan bu rafet dafay firi xabaaru mbégte xabaaru bànneex da gént di jokkoo ak téléphone ñun la sa téléphone sonné nga wuyu muy nit koo xam ne xam nga ko nekkul koy bëgganteel bu dee koy bëgganteel demal ci maanaa ci yeneen vidéo yi def naa ci ay leeral dafay firi xabaaru mbégte ñaari way dencante ku góor daa gént soxnaam di ko woo téléphone wala jigéen gént sa soxna di la woo téléphone dafay xabaaru mbégte xabaar bu neex gént di wala nga gént ay ay ay ay xale yu yaat yi ay gato xeetu ñam sucre yooyu nga gént gis ko ci sa table dafa firi xabaaru mbégte waxoon naa la gént ñu tàggale koy bëgg waaye gént ñu tàggale sa xarit ne la faatu na ngay nelaw nga gént ñu tàggale ko def naa vidéo bu yaatu ci gént sa xarit faatu waaye bu da ngaa tëdd nelaw gént ñu faatu la ko dafa firi xabaaru mbégte mun tamit gént ay fruits yu nekk ci kees keesu fruits yi nga gént dafay firi xabaaru mbégte xabaaru bànneex moom itam kazaalika balaa ñuy continuer ñu wanaat leen yii defe naa wan na leen ci ñëw yi fi jaar yëpp kii saafara la bu baax te amul moroom ci képp koo xam da nga am jafe-jafe rab cat seytaane liggéey jàpp la ba mu teel a avancé yàq sa liggéey say mbir tëju wala jigéen mu teel a nga bëri jafe mën nga jëfandikoo kii yàlla dina dimbali mu dañ incha allah ko soxla mën nga jokkoo numéro nekk am na possibilité ba nga jot kii kazalika koo xam ne da nga am même jafe-jafe say mbir tëju ngay wut liggéey mu jafe nga toll ci say say jafe ay rab teel sa liggéey doxul wala ngay liggéey liggéey bu laaj bayre mën nga ko jëfandikoo incha allah baax na ko ci soxla mooy mën ngeen jokkoo ñu kii baax na pour ngóora koo xam ne da nga am jafe-jafe ngóora sa dafa nooy ngay gaaw a yegg sa awra dëgërul mën nga ko jël baax na moom it kii gàllaaj la pour hémorroïdes bu la sonal interne externe yëpp wala nga am jafe-jafe ndoxam siti mën nga jokkoo ci numéro bi ci numéro yi kazalika ñu continuer dangaa génn teg ñam ñu sàcc ko looy bëgg a lekk nga gént ñu sàcc ko day firi xabaaru mbégte loolu moom xam naa du neex ci ñi sant Sow ak ñi sant Sall ak ñi sant Ndaw ñi sàcc sa lekk ni mu ñaawee ni mu naqaree ci xol bu dee génn mun la baaxee day firi xabaaru mbégte bibliothèque maanaam bibliothèque nga gént waxoon naa ko ci vidéo njëkkee ci jànq bu amagul jëkkër dafay firi xabaaru mbégte ak bànneex ci vidéo yu passé wax naa bu dee da nga dem ci bibliothèque nga gis fa koo xam ne koy bëgg la wala nga gis fa góor goo xam ne kii dana fi sëy kooku bu dee ñeneen ñi bibliothèque dana fi liggéey walla yokkute ci liggéey wala yokkute ci njàng baax na ci gént <laughs> gént di photo ci sa ci sa ci sa portable nga gént yor sa portable di photo comme yi xew léegi dafa firi xibaaru mbégte ak xibaaru bànneex bokkul ak nag gént ñu lay photo bu dee da nga ñu lay photo photographe tiima di la photo wala keneen yor téléphone di la photo waxoon naa ci vidéo yu paase dafa fokk dooy bokk ci euh, gént yi nga xam dafay signifier cap-cap gént taabul bu tegee am ay fruits yu bari mais ñu ranger ko désordre lu dafay firi xibaaru mbégte xibaar bu neex ci aji gént ji baax na ci gént gént sa loxo dagg jigéen xale bu jigéen da génn sa dagg paaka dagg wala jaaseel dagg wala dañu cor mu dagg wala laam dagg la lu ci mën a doon ci jànq bu jigéen dafay fiir xibaaru mbégte ak bànneex bu dee ñeneen day firi naqar lu jafe yu dëdd xale bu jigéen bu amul jëkkër mbégte xibaarum mbégte lay firi baax na ci moom gént immeuble bu rafet ci xale bu góor walla góor goo xam ne am na soxna dafay firi xibaaru mbégte ak bànneex waaw ah, kay euh, bu fekkee koo xam dafa doon sëy ba sëy ba tas nga gént di ataaya wala ñu jox la yi nga koy naan jigéen ju sëy ba tas dafay firi xibaaru mbégte di firi bànneex baax na ci gént dangaa gént di yëg fu kawe ci xale jigéen ba amagul jëkkër baax na lool dafay firi xibaaru mbégte di firi xibaaru bànneex léeg-léeg dina ñëw firi ci ñeneen ñi dana firi atteindre sa objectif ci lay bëgg ci sart yéeg bi bañ am coono ala kulli xaalin lii lenn la ci gént yi nga xam ne foo gént dafay firi xibaaru mbégte bànneex ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatuhu